mais peuple moo bu doole may gis ni CEDEAO toujours damay laaj comme maa ngi dajee ku mel ni Dame ak Pape de ma xëy na gindi parce que damay xool entre différence lan mooy terroriste ak lan mooy e CEDEAO seen différence parce que damay jàpp ni euh, terroriste surnom la CEDEAO mooy tur bi vrai man noonu laa koy jàng nga jàpp ni CEDEAO dañuy terroriser peuple non parce que non réew yëpp parce que ñun ñii bu fekkee ne CEDEAO dëgg la. maanaam peuple ci ginnaaw peuple bi nekk ñun CEDEAO waroon nañoo wallu Sénégal bu yàgg. parce que ñun suñu président ñaar yoo xam ne buur yëpp dañ ko fee bàyyi moom da koy tere muy fudd ak bibbali. lii loolu. fuddutu ak li président da koy tere. bu suñ président bi. da koy tere mais fuddutu mooy lan dox ñaxtu wane lan la xar. bibbali mooy wax lan la xari. ñaar yëpp da koy bañ. kon ñun CEDEAO waroon taxaw suñu ginnaaw mais tey jii président boo xam day noot askanam. CEDEAO yoonam nekku ci président buy foqati troisième mandat kaw duma askan wi yoonam nekku ci. Hmm. waaye nag bu askan wa révolté mu ñëw taxaw ci ginnaaw président bi kon CEDEAO lan la eh, groupe groupe syndicat la yu dajee. Hmm. maanaam pour seen intérêt personnel. tey jii wax nga ko léegi. Hmm. bu fekkee ne CEDEAO dafa génn. Eh, ni xa wàllu Karim Wade niñ ko attee baaxul. wax ci wàllu parrainage Mimi Touré génn na keneen génn CEDEAO moomuñu. ñun ñoo xam ne ñuy doxalee. tey jii ñu ni CEDEAO te pourtant Sénégal gii ñu li ñu gën a naqari ci transport CEDEAO moo ñu ko teg. lu ñu gën a naqari ñu gën a naqari ci Sénégal gi seen yaaw moo ñu ko teg tey jii jël Côte d'Ivoire ki moom Afrique Gosaas bii ngeen dégg Sénégal. Hmm. Ivoirien la xaritu président bi la xaritu Macron moo ñëw installé bi Sénégal gépp mais réew mu ñuy jaay suuf par kilo di jaay xeer par kilo président taxoon damay wàññi location nu mu koy wàññee est-ce que loolu wax na askan wi dëgg munul nekk ku nekk xamoon nga ne suuf parce que dañ koy kibaas béton par kibaas la mais Sénégal par kilo lañ koy jaay xeer. par suuf par kilo la ñuy jaay suuf ba pare nga bëgg daam boo di jënd xaalisam ba tabax nga ne ko damay wàññi location bi te yaa ko doon jël jëndloo suuf par kilo di ko jëndloo xeer par kilo te lan moo ñu ko teg ñu ni mhm. am groupe boo xam ne mafia la Afrique Osage boo xam ne ay milliards lay récolté. Mhm. kenn mësul dégg ba mu fi ñëwee 2013 ak léegi ñun Afrique Osage moo dugal lii ci état Sénégal. te loolu CEDEAO moo ñu ko imposé. nee na nee nañ Sénégal ñu ko imposé te ki ko nan nga nan la Sénégal mën a nelawee nelaw laa wax sax nelaw ñàkk xam-xam. Mhm. pont bascule yoo xam ne ki ko moom ma nga Côte mhm. yow fret malien bi nga xam ne moom ngay xëccoo ak malien yi. Mhm. moom ngay xëccoo ak Côte d'Ivoire. ak Côte d'Ivoire. Ablaye Wade ci xam-xamam ñu koy ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan loolu wér. bi Côte amee guerre bi ci la profité moom ci lool xool intérêt fexe ba xëcc malien yi ñu ñëw. waaw defal leen lépp ubbi leen bunt yi malien yi ñëw gis ne Sénégal moo gën a neex ñoom ñuy gën di ñëw. Côte d'Ivoire loolu bokk na ci ndax ñu gën a yàkkamte guerre ba ci yàq pour maliens yi mën a ñëw. donc Diallo bi guerre bi amee Côte ci ngeen gis ne yéen transporteurs yi euh, ci dem bi ngeen di dem Mali di yóbbu marchandise yooyu ci la yokkee. waaw mais ci la transport ubbeeku. ci la transport ubbeeku ci la transport ubbeeku Sénégal. d'accord ci la transport ubbeeku parce que ci la Kidira am pont. ci lañ dem pont Guédiawaye bi parce que bu njëkk ay benn benn ñooy dem Mali ñi ngi defar pont suri pont bi pont bi parewul mhm. oto yi bu ñu demee ba Guédiawaye dañuy jaar suuf pont bi mais duñ dem nawet noor la ñuy dem mhm. bu dee nawet Guédiawaye ngay wàcc wàcc ñu jaarale ko ci ay gaal d'accord ci la pont profito mhm. mais ci la moodu moodu yi nga xam ne ñoo nekkoon Europe ak ñëpp ñu bari ci lañ ñëw dugg ci transport ñëw investir ñibbi si seen réew nga gis ci ay transporteurs yoo xam ne bu weer dee quarante millions la ñuy jël séddale ko seen i employé tey jii transporteurs ay transporteurs yoo xam ci diggante Mali Sénégal lañ. 40 ko fay ay salaire di ko fay ay salaire. par weer salaire rek par weer kon ñooñu ñaata employé lañ yor nga gis ne ñi ngi fay banque. Mhm. ñi ngi fay ay employé employé ñaata la ñuy nga jékki-jékki jël ay caaxaan tëj frontière bi. dégg avant ñu tëj frontière bi Diallo ñaata camion ñooy jóge port jëm jëm Mali par jour à peu près. 700 camions ñoo fi génn par jour. 700 camions ci port Dakar bii. par jour 700 camions ñoo fi ñu jëm Mali ñu jëm Mali biir port laa la wax de. mu des yi génn ci trois cimenteries yi. donc jàll il faut ñu leer il faut mu leer. 700 camions dinañ génne port. dinañ génne port lan la ñuy def généralement parce que actuellement am na balo bato bele boo xam ñi ngi ko doon xaar nee nañ mu nga jëm Mauritanie. Mauritanie lay lay teer nee nañ fa waaw jeex na bu ko xasee mos nag. parce que naa ma nga débarqué 500 camions ñu jëm Mauritanie. mu tën yàggoon na soxla loolu. waa jooju ma liir ci ñoom. togg na togg na togg na moom moom moom camions yu bari. waaw 500 camions yi d' accord léegi 700 camions ñooy jugee port Ndakaaru. am yeneen camions yoo xam ne ci suñu cimenterie yi la ñuy jugee. jëm Mali trois cimenterie yi. ak yi ak yi nga xam ñooy jugee ci magasin yi. ak yi nga xam ñooy jugee fu mel ni ñii defar euh, nu ñu ko waxee yeneen matières yi. may bañ a publicité ay pâtisserie ak yooyu. oui yi génn dem. yëpp jëm Mali. ah yi génn ay nasaraan fu nekk dem. léegi ba euh, Diallo. est-ce que ci dëgg-dëgg fii ngay waxee ñun nii nii. ñu toog jàkkarloo est-ce que ci dëgg-dëgg frontière Sénégal beeg Mali tëj na camion jaaratu ci. waaw non ñi ngi jaar. ñi ngi jàll. loolu dama ciy gërëm Walfadjri parce que fii ngeen def émission yéen yéen a ma woo. waaw ma leeral leen ni Côte d'Ivoire. ba hmm. tey mi ngi ci lim doon wut. mooy ci keppaar gi parce que hmm. benn bët la xoolee

daan ni frontière bi léegi nañ ko ubbi waaye na gaz carburant jàll gaz wala essence. na soble jàll na ceeb jàll. comme léegi am na bato bi mu dem na bato bele ba dem na fee kon bele yi ñu tëree fu téye woon frontière nañ leen bàyyi gaaw balaa beneen bato bi nekk ci yoon wi ñëw demaat Mauritanie ñu ni kon na bele jàll kon lan lañ fa téye. Mhm. ciment lañ téye. ak fer kon ça veut dire que am nañ kees retourné. dañoo ñëg non jàll suñ su ma la déggee bu baax euh, ngeen ngeen dimbali ma ci cest que dire que CEDEAO dañu décidé ne dañuy tëj frontière yi euh, nu ma ko mën a jàpp mooy Côte d'Ivoire am intelligence wala boog ñu malin ñoom. am xam-xam. Euh, tëj tuuti. waaw bàyyi leneen. moom laa la wax gisee benn bët ne pap kenn du dem kenn. waaw xam nga Macky am na benn habitude. oui toujours moom day bëgg def loo xam ne rek Macron danaan Macky jiitu ci lu Macky ci lu Macron bëgg. Mm-hmm. ci lu Macron bëgg. effectivement tey jii xoolal Sénégal kii jëlee exemple. peuple bi nga xam ne ñoo faloon Macky Sall jëli bi Abdoulaye Wade ñoo taxaw. am lu ñu bëgg. ñu ànd ak mu gouvernement am lànkal ko loolu mooy lan. ñu ni borom ñaari tur yi bëggatuñ bëggatuñ ko fi. dinaa ñëw ci moom mu lànk loolu. ñaari yi d'accord moom mu lànk loolu. très bien lan la def. macha allah rangé wu ñu ginnaaw Macron. ndax Macron moom góor jigéen tasaaroo fi moo ko gënal. mu rangé wu ci ginnaaw bon peuple bi ginnaaw. très bien alors dinaa ñëw ci ci loolu mais bala may dem ci Ramatoulaye Pape rapidement. waaw préciser ci li mu wax. oui mbirum euh, Côte d'Ivoire. oui ubbee frontière am mbirum Guinée ni mu ubbee frontière am mu fàtte également Bénin. Bénin pourquoi. donc donc am euh, Mali mën nañoo jëlee ji marchandise. non non non mu ñoom dañuy seen marchandise Bénin ba Accra di ko dugal. ba Accra mais pourquoi ñu def ko. Mm-hmm. parce par exemple ku mel ni Guinée. boo dégloo boo dégloo le secrétaire général de la présidence guinéenne mu ne. pour que CEDEAO ces sanctions soient effectives. Mmh. il faut que le conseil de médiation et de sécurité réunir. Mhm. les neuf membres. sept euh, sept élus et mhm. deux deux deux nommés il faut ñu réunir ñoom ñoo mun a proposer d'abord des sanctions. Mhm. avant que la la conférence des des, des chefs d'État mun ko entériner. loolu la Guinéen yi mais loolu la prés euh, général de la présidence guinéenne nee na. nee nag comme procédure boobu defuñu ko. Mhm. ñoom ils dans une logique bi nga xam ne ils considèrent que la décision de la CEDEAO est nulle et non avenue. loolu fulla la. voilà Moussa xamoo ñun transport xamoo lu ñu naqari. Mhm. li mu nekk ci janvier. mais bu fekkoon ci année bii la maanaam novembre wala décembre. Mhm. Macky Sall la ah oui dañ ko koy nommé le ndax ndax lim nangu ñu def. waaw Dakar nag am na avantage mu am ci ci port Côte d'Ivoire beeg yeneen réew yi. moom laa la wax moo tax ma ni. Maliens yi dama Sénégal li ñu. Sénégal Sénégal moo gënal Maliens ñuy bañ mooy ministère yi. Ah, ak seen jiitu gouvernement. toog na ñoom ñoom mois d'avril bii passé. Euh, novembre xam lu ñu wax. gouvernement bi ak bii nii seen weer président euh, ministre premier ministre bi. toog leen ak ministre transport. ak commerçant yi ngay wax tëggu naa ñu gën a rëy ca dëkk ba. xam lu ñu bëgg. ñu ni ñoom dañoo bëgg bu fin février début mars à 100 pour cent fret malien bi lépp di jóge Sénégal. yow ñooñu bëgg loolu di ko dox nga bëgg leen koo xañ ci nit ñàkk caaxaan yi ñu ngi yàq suñu affaire ah alors euh, maa ngi ci ñëw mais mais su ma déggee jàll ñun ñu ngi yàq suñu affaire ak malien yi quand même ñun affaire su ma déggee li ngeen wax ñun ñoo waroon a nekk les avocats du Mali les défenseurs du Mali actuellement mais jaay caax sax dañoo mer alors Ramata du point de vue économique Euh, parce que man dafa bari information yoo ciy dégg yu yu bari jaxasoo da am na sax ñu dem ba ne ñun li ñu Mali di jariñ France jariñuñu ko. du point de vue économique est-ce que am nga ay information sur les échanges entre ñaari réew yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Moustapha du point de vue économique bu ñuy xool déjà ces cinq euh, dernières mm-hmm. euh, Mali mi ngi rapporté au Sénégal deux mille quarante deux milliards. deux cinq dernières années waaw. déjà en 2019 500 560 milliards d'exportation ci mm-hmm. exportation yi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy yóbbu au Mali mm-hmm. c'est estimé à 560 milliards kooku 2019 la nga mm-hmm. dem 2020 euh, 474 milliards mooy exportation yi Sénégal di jóge fii di ko yóbbu Mali nga gis Mali ci cinq dernières années comme ni ma la ko waxee 2042 milliards la rapporté au Sénégal ñu jógee ci boobu sànq daam mi ngi koy wax. Mhm. l'envoi de la diaspora boo koy xool tamit par an c'est 500 milliards. Mhm. de la diaspora nga xamante ni ñoom. Mhm. ñu 500 milliards yooyu c'est supérieur même à l'aide euh, au développement public. xaalis bi ñuy dugal par an. plus de milliards même. moo ko ëpp donc si on estime yooyu perte d'ici da ngay xool déjà en en deux mille dix neuf xool deux mille vingt kooku mhm. nga tegee ko ne jël les cinq dernières années mu nekk mhm. deux mille dix huit deux mille dix sept deux mille seize deux mille quinze mhm. plus de deux mille quarante deux milliards donc aujourd'hui bu ñu xoolee euh, loolu day nekk au niveau du port parce que port ñëpp xam nañu ni quatre vingt cent du fret maritime foofu la port du fret nga dem également ci li nga xamante ni moo di euh, corridor Dakar Bamako bi mm-hmm. ñoom Diallo ñoo xam nañu sànq mi ngi koy wax ci au niveau de la route li nga xamante ni ci cimenterie yi déjà mm-hmm. fii mm-hmm. am également yenn produits yoo xamante ni Sénégal fii amu ko te nga xamante ni dafay bàyyi ko na mais jaar également Mali ñu koy jëlee foofu muy des produits de consommation yoo xamante ni dañ koy utiliser fii donc si on estime tout ça c'est des coûts de milliards yoo xamante ni aujourd'hui li li li gën a metti également mhm. population sénégalaise mën naa ko wax mooy c'est vrai que dañ koy wax toujours naan les les les états n'ont pas d'amis ils ont des intérêts mais aujourd'hui euh, li ñu mën a gis lecture bi ñu mën a am aujourd'hui mhm. c'est quoi c'est que peut-être intérêt les intérêts n'ont pas été mis devant moom mun nañ ko wax loolu aussi bien euh, du euh, côté du mhm. tey jii doon na baax Sénégal bu ñu dee participer ci sommet wu CEDEAO suñu chef d' état suñu président bii nekk fii te ba euh, jàll ne c'est le cuulat la ne mm. suñu président bi fi ne doon na baax kon suñ dee wax ci Mali xelam na ci ñoom jàllo ñaa mm-hmm. xelam na ci cimenterie yi xelam na ci les commerçants sénégalais yiy dem Mali di ñëw avant muy nekk ci leneen bien sûr ñi nekk ci port ñooñu ñëpp ñu nekk ak sa ak même gafaka ak gafakaam moom parce que quand même cent quelques milliards quatre cent quatre milliards euh, deux mille milliards sur cinq ans c'est quelque chose deux énorme mm-hmm. euh, nga gis yaa ngi koy wax commerçant yi déjà fii yaa a de y a ñenn ñi nga xamante ni ci secteur informel bi laa ko mën a wax ñi ngi mm-hmm. def seen commerce di dem Bamako di di def ci cuub bi di mm-hmm. def ci yeneen ak yeneen tey dem nañu am na benn euh, benn euh, comment dirais-je dans Walf Quotidien li ma ci gis également mhm. aujourd'hui li nga xamante ni moo di commercant perte yi ñu ci am te xam nañu Sénégal au moment de la tabaski ak yooyu yëpp li ñuy xamante moom la ñuy jëli comme bétail foofu pour ñëw gën a approvisionner le marché mhm. donc loolu yëpp tey ji dem nañu ba un bœuf ça coûte trois cent cinquante mille au lieu de trois cent avant c'était trois cent mais ci espace quelques jours bi rek mhm. dem na ba 350 léegi kon euh, Diallo mi ngi wax ne bu ñu nekkoon ci mois de novembre ak yooyu mu mu jox Macky Sall benn distinction mais coow lii bu ñu fekkoon ci tabaski ñoom Pape Mokhtar ñi buñu ñu daal du ñu rendi de. c'est sûr tabaski c'est sûr. c'est sax camions yi Mali ni ñuy jógee ñëw Sénégal léegi gab boobu bu fekkee manqué nañ fan lañ koy jëlee. te moom bi ñuy wax c'est vrai que. oui léegi je je veux pas faire de de la provocation. <laughs> est-ce que mënuñu imaginer. que même si la CEDEAO lève ses sanctions et tout ce qu'on veut ñu dem côté Tabaski Assimi Goïta ne comme Sénégal ñoom ba ñu taxawee ne ci problème mm-hmm. dañoo lànk ne du ñu jàppale léegi da téye suñuy xar. ouais et puis ils auront raison aussi parce que fii dañ doon xaar pour que le peuple je ne dirais même pas le peuple ndax peuple moom solidarisé wu nañu au peuple malien mais suñu dirigeant yi je veux dire le président Macky moom moo jël mm-hmm. lii nga xamante ni moo di intérêt ñi ñuy bañ ñuy tudd muy France jiital ko au détriment de ce peuple malien nga mhm. xamante ni ñun ñoom la ñu gën a jege te combien de sénégalais et puis euh, Diallo combien de sénégalais également ñoom ñoo am ci camion yi ci oto yi nga xamante ni ñoom ñooy dem ba Mali c'est pas simplement des Maliens ñoom ñoo moom camion yi mais y a des sénégalais yoo xam seen liggéey mooy yàq ñoom moom camion yi am na ñoo xamante ni dañoo nekk par exemple à Thiès ci carrière yi foofu mhm. carrière de basalte yi carrière de kii euh, gravion je yooyu yëpp di ko exporter di ko yóbbu au Mali nga xamante ni c'est des camions par jour combien de camions ñoo fay génn di bàyyi ko ci économie bi bul xool oto bi dem Mali rek ah. mhm. parce que bu fekkee ni da ngaa gis Dangote ñëw ubbi fii usine mhm. fret malien bi fi nekk moo tax mhm. te bateau bi nga xam ne mooy charbon bi ak calcaire bi ñu koy defaree port yii lay embarqué cent cinquante camions di ci daw pendant treize jours muy doog a jeex heure bu jeexee beneen ñëw yooyu li mu Mali di ci daw treize jours ma ni ko ak carburant bi nga xamante ne aussi Sénégal lañ koy jëndee mais mais mais su ma